di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu nekk ak yéen ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwirus Sudur ñuy woy rek ci bunt bi nga xam ne ci lañu toll ci suñu bind yu mujj yëpp muy bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi radiyallahu anhu di leeral njariñ yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa am waaye jullit ñi di ko bu baax a baax ak lor yi nga xam ne moom la iblis laanatullahi alayhi ame te di ko lor ak gàllankoor ñi nga xam ne ñooy jaami suñu boroom yi kon fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon ci suñu bind bu mujj rek mooy fi sëriñ bi di wax ne rabbina huwal kitaabu wa fiihi xaala zalika al ñi continuer rek sëriñ bi di wax ne wa min na ci lori kañu rëbb te mooy iblis di saytaane ay dan ba tey axzaahu yàlla na ko dollee gàcceel baaxin aji des ja te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne yu diimu dana saxal lii ñeel ma faydan ay dolli ay may saddul muridina dummooyuloo taalibe yi ani taallumi walif jàng li wajhi rabbina ngir jëmmi suñu boroom alalimi may aji xam al alami magaja ma xam nena bokk na ci euh, lor yi nga xam ne saytaane daf koy lor ñi nga xam ne ñooy jaam yi di ko lor ñi nga xam ne ñooy Euh, jullit ñi mooy du mooyloo gim leen du lépp loo xam ne mooy jàng waaye du mooyloo le euh, leen du mooyloo lépp loo xam ne moo aju ci sàkku xam-xam kon seytaane moom euh, li nga xam ne mooy arme bi gën a mag bi nga xam ne moom lay jëfandikoo mooy fexey ba taalibe yi du ñu jàng waaye fexe ba julit ñi du ñu jàng ngir ñu xam li nga xam ne euh, moom noonu dañuy mën a jaamoo suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne loolu rek moo tax mu wàcce ñu fi ndax suñu borom subhanahu wa taala ñu fee wàcce ngir ñu jaamu ko te jaamu googu itam mënut a wér am lu dul ci ak xam teg ko ci ak xam ndax sëriñ bi doon nañu wax ca jawhar ne euh, jullit bu ne. jëf joo xam ne moom lay def rek war na caa xam la nga xam ne mooy atteeb suñu borom bi subhanahu wa taala doog a jug jëm ca jëf joojee te xam atte bi nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala atte eh, atte mënuta am lu nga jàng ko kon iblis muy saytaane dafa taxaw temm ci dox diggante ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye dox diggante ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ci sàkku xam-xam bi nga xam ne moom moo leen di jëmale ci seen borom bi subhanahu wa taala waaye sàkku xam-xam bi nga xam ne moom mooy tax li suñu borom bi wa taala farataal ci ñoom ñu xam ko ba man koo jëfee moo tax sëriñ bi ne fa kullu man képp ka nga xam ne dayyaa sànk na ilman xam-xam bi ci xam sunna obi faraida ak ay farata wayarta ji tami yaakaar alminan ay xéwal fa huwa moom zud dalaali boroomuk réer la wal idlaali te it boroomuk réeralaate la jazauhu dana ko fay intiqaamu zil jalaali fayoon teeg borom màgg ga mooy suñu borom bi subhaanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne day euh, sàggane nga li nga xam ne mooy xàmmee sunna ak farata ba pare di yaakaar dara ci euh, tedd nga wala nga yaakaar dara ci li nga xam ne mooy xéewal nee na kookee dina xam ne bo borom réer la waaye boroomuk réeralaati la ndax la nga xam ne ca la nekk képp ku mu ca xëcc rek ma nga moom réer na ba pare xëcc la ci réer bi nga xam ne moom la réer nee te lépp loo xam ne nag moom la nit jëf sukkandikoo ko ci moom te ci ak réeram la ko sukkandikoo na xam ne bu ëllëgee suñu borom subhanahu wa taala mi borom màgg gi dana ja fayonte ak moom kon nit ki lépp loo xam ne moom lay def war na koo teg ci xam-xam waaye war naa fexe bay sàkku li nga xam ne mooy xam-xam bi koy tax mu mën a xam ni muy jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala ndax sagam jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala farata la te mënut a ñàkk te euh, jaamu gi dafa am ay atte te atte yooyu mënee su koo xam lu dul des koo jàng kon yàlla na ci jullit bu ne yàlla na ci taalibe bu ne mu sàkku xam-xam yooyu nga xam ne moom moo koy taxaw xam ne li nga xam ne mooy farataay jëmmam waaye tax koo xam li nga xam ne mooy farataay jëmmam ak atte yi nga xam ne moo ci aju ba bu koy jëf teg ko ci xam-xam kon Euh, bokk na ci euh, ngànnaayu iblis mooy fexey ba du mooyloo nit ñi euh, xam-xam waaye fexey ba nit ñi du lépp loo xam ne moo aju ci li leen di dimbali ngir ñu mën a xam ne nii jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi doon wax feneen ci xasida yi wa min makaidi lainil mujrimi saddul muridina an taallumi bokk na ci pexey iblis mi nga xam ne suñu boro bi subhanahu wa taala daf ko rëbb mooy du mooyu gum du mooyuloo ñi nga xam ne ñooy taalibe yi lépp loo xam ne mooy sàkku xam-xam euh, Iblis nag euh, am ay ndaw yoo xam ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy représenté ndax képp koo xam ne moo dox sa diggante ak jàng li nga xam ne mooy diine moo dox sa diggante ak jàng li nga xam ne moo lay tax a xam sa diine ba mën koo jëfee kooku mën ngaa jàpp ne représentant iblis la euh, mooy ki nga xam ne mooy dox sa diggante ak ak iblis mooy ki nga xam ne moom moo représenté iblis ci euh, dox sa diggante ak jàng li nga xam ne moo lay dimbali ba nga mën a jëfe ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi doon wax ne wa man nahaakum ani taallumi euh, fa nahyuhu ila dalaali képp koo xam ne mi ngi leen di aay ngeen sàkku ji xam-xam ñu ngi leen di euh, dox seen diggante ak sàkku xam-xam na ngeen xam ne kookee day boroomu réer la waaye réeral leen rek la jublu kon xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki di xam farataay jëmmam loolu moom ku ci ne war ngaa jug def sa kem kàttan sàkku ko ba xam ko waaye nag beneen xam-xam boo xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala moo ko yenkeewal nit loola moom ci coobare suñu borom subhanahu wa lay amee waaye na xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a xam fi muy teg tànkam ci jaamu yàlla kooku moom euh, lu jàpp jàppandi la te képp koo xam ne xam lu nga ko suñu borom dana la dimbali ca xam nga mu ne wa min mawaahibi rasulillahi bokk na ci may yonente bi yàlla bi alayhi yal na nekk ci moom tasli taslima taslimal ali ñaari musali aji kawe ja te mooy suñu borom subhanahu wa taala al ilahi kadi an la mu bañ a deñ zikruhu alquranam ji murattilan mu di lu ñuy jàng li rafahi ba baa ñu yëkkati man lam yurattil képp koo xam ne doo ko jàng moom alquranul karim ontila def na ko bëmax mu jëmte yoonu sawara nena bokk na ci may yi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala may na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te muy may bu fés mooy des gi desal desal alquran ci ginnaawam muy loo xam ne euh, jullit ñi dañ koy jàng fu ñu toll waaye jullin yi dañuy seet atte yi nga xam ne moo ci ne di ko jëfe waaye jullin yi dañ koy euh, euh, tiitaroo di ko ndamoo di ko jàng di ko bàyyi xel ngir lan ngir màgg boo xam ne màgg na ko moom alquran waaye am solo goo xam ne am na ko solo waaye wàcce gi nga xam ne it suñu borom subhanahu wa taala dëppale na ko ak yonente bi wàcce ko ci moom loolu lépp ay jagle la yoo xam ne alquranul karim am na ko kon bokk na ci may yi suñu borom bi subhanahu wa may yonente bi mooy des gim desal alquran ginnaawam jullit ñi di ko jàng waaye di ko jàng di ko seetantal di bàyyi xel ate yi nga xam ne moom moo ci wàcc ñu koy jëfandikoo Ah, kon loolu oh, ay may la yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jagoo te loolu nag du deñ di am li feek ñu yëkkati alquran na ndax saa boo xamee ne soob na suñu borom subhanahu wa taala moom mooy dem ba mu soob ko mu yëkkati ko kon li feek alquran moom mi ngi fi moom jullit ñi ah, di ko jàng waaye di ko seetantal kon képp koo xam ne nag sax nga ci di ko jàng di ko seetantal bay mel ni yow yaa ngi ci yoon wa nga xam ne Euh, moom la suñu borom subhanahu wa taala taamu waaye yaa ngi ci yoonu siratal mustaqim euh, ndax yaa ngi koy jàng di jéem a xam li nga xam ne mooy atte yi di ko jëfe waaye yaa ngi koy jàng di ko settantal ngir mën cee génn ay xam-xam yoo xam ne dana la mën a jariñ ki àdduna waaye dana la mën a jariñ ëllëg yow xiyaam kon loolu lépp ay euh, mbir yu am solo la yoo xam ne ki may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk waaye nag képp koo xam ne nag du mooy nga ko moom bañ koo jàng moom alquran na nga xam ne kon yoon wa nga soobu yow mooy yoonu texee di yoonu iblis nga soobu ndax aji texe nari aji nara texee di rek moom mooy ki nga xam ne moom mooy du mooyu alquran du ko jàng euh, bëggul ñi koy jàng duko déglu du ko bàyyi xel euh, te it lépp loo xam ne moo koy xeex mu taxaw ca di ko xeex képp koo xam ne loolu moo di saw yoon rek na nga xam yow yaa ngi ca yoonu iblis te yoonu iblis moom ko ku ca ne ëllëg fo nga xam ne fa lañ lay bamax jëme rek mooy bamax la jëme fi nga xam ne mooy sawara te alquran nag dafa doon téere boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala wax na ne képp koo xam ne du mooyu nga ko na nga xam ne ci dund gu xar rek ngay dëkk wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama wa huwa fi l axirati min alxaasirin képp koo xam ne suñu alquran bii day du mooy ko won ko ginnaaw na nga xam ne di nga dund dund gu xat fii ci àdduna waaye ëllëg bu ñu lay dekkal yaag ña nga xam ne ñoo perte ña nga xam ne dañ leen a na nga xam ne noonu la dekkee nga xam ne amul dara loo xam ne moom la ñuy yaakaar ci suñu borom subhanahu wa taala nee na yow ak ñooñu yéene dekkeendoo kon alquran lu jara bàyyi xel la waaye lu jara sàmm la waaye lu jara wattu la Eh, ginnaaw ba nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko jëkk a boppam ndax suñu borom subhanahu wa taala moom moo wax ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun man sama borom bi subhanahu wa taala ci ak màggam moom moo wàcc alquranul karim waaye moom moo koy sàmm ci lépp loo xam ne moom moo ko mën a gàkkal wala lépp loo xam ne moo mën a eh, dox digganteem ak ñi nga xam ne ñooy jaam mu ne wa min ajaib ibni abdillahi bokk na ci kemtaani doomi abdillahi ja salla yal na doole xiiwal alayhi ci moom allahi euh, bi salaamillahi ci euh, euh, xéewali suñu borom subhanahu wa taala baaxin may aji des adaa moom leeral na ardahu suufam si bil awliyaa ci ay wali ilal xiyaamati jëm ba bis penc wa kullun te képp ci ñoom waliyaa méng nañ ko ay ngëneel Euh, waliya méng nañ ko sunnatahu sunnaam sa wasaanaha te mu ko an bidaayin ci lépp loo xam ne bidaa la tabshiruhu ak bégalam xadimahu liggéeykatam ba te mooy xadimu rasul bi fas daay ci euh, leeralal ak biralal euh, amarahu digal na ko salla yàlla na doole xiiwal alayhi ci moom allahu yàlla fil aali ci ñoñam wa sax bi ak i saxaabaam waman ak képp ka nga xam ne waalaahu méng na ko bi an yuallima ci mu xamal almuridina taalibe yi waman ak képp ka xam ne yaqbalu dana nangu min hu tukkee ci moom an nusxa ak laabire min ahli zamani ci ñoñ ci ñoñ jamono ci kéemtaani doomi abdullahi ya te mooy yonente bi alayhi wa Euh, def gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala def ginnaawam ay wali yu di ci ñëw di leeral li nga xam ne mooy euh, suufam di leeral suuf si waaye di leeral li nga xam ne mooy di euh, leeralaat li nga xam ne mooy sunna si fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon waaye di beesalaat li nga xam ne mooy diine ji nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moom la fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama bàyyi woon ndax sëriñ bi ñu koy dégg mu naa diinun si waa islaamuhu la yuhmadu indal ilahi wa bihi jaddidu kon am na ay wali yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ci ak jagle gu mu jagleel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaawam na ci ay wali yu bari yoo xam ne li leen tax a ñëw rek mooy ñoŋalaat li nga xam ne mooy sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gën a bàyyi xel li nga xam ne mooy euh, woote bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye di xëcc nit ñi di leen te jëmale di leen fàttali li nga xam ne mooy njàngale mu leer moomu nga xam ne àndut ak daraay bidaa euh, ñoŋal ko ci lépp loo xam ne nag mooy bidaa waaye aar ko ci lépp loo xam ne moo ci mën a dugg ngir man koo yàq waaye bokk na ci itam ba euh, bégal gi mu ko bégalee moom yonente bi salallahu alayhi ci liggéeykatam bi Euh, rafaatale ko li nga xam ne mooy la ko suñu borom subhanahu wa taala waxoon ne ko fasda bi ma tumar waarid anil mushrikin yonente bi saa sallam suñu borom subhanahu wa taala daf ko waxan ne euh, biralal li nga xam ne mooy woote bi te nga euh, du mooy ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo lay xeex kon sa bu wootee biral ko ca kaw biral googi nga xam ne nag moom la yonente bi saa sallam suñu borom subhanahu wa taala digaloon ko ko day ni biral googee nga xam ne moom la waroon moom la doon biral wooteem boobee daf koo rafaatale liggéeykatam bii nga xam ne mooy xaadim rasul sallallahu alayhi wa sallam jox ko ndigalul wool ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye jàngalal ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye fàttalil taalibe yi li nga xam ne mooy samam njàngale waaye fàttalil taalibe yi li nga xam ne mooy sunna si nga xam ne moom laa fi andi woon waaye fàttalil taalibe yi li nga xam ne mooy diine ji nga xam ne moom laa fi andi woon te loolu sëriñ bi radiyallahu anhu bay na ci waar wu yaatoo yaatoo yaatu waaye képp koo xam ne itam nungu na ak laabire ci ñi nga jamonoonteel ak ñoom ñoom ñëpp na nga leen woo na leen xëcc euh, dugal leen ci li nga xam ne mooy diiney euh, diiney euh, lislaam waaye nga fàttali leen li nga xam ne mooy wooteeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dafa bokk ci kéemtaani yonente bi wàcce gi suñu borom subhanahu wa taala wàcce ci ay ginnaawam ay wali yoo xam ne ñoom ñooy fàttaliwaat nit ñi diine waaye di fàttaliwaat nit ñi li nga xam ne mooy sunna waaye di gën a leeral woote yonente bi salallahu alayhi wa waaye di xëcc nit ñi euh, di leen fàttali woote bi yonente bi alayhi wa te kooka ñooña wali yooya bokk ñu ña ci gën a ràññeeku di liggéeykatam bi nga xam ne daf koo rafaatale woon loolu euh, ne ko euh, na nga woo ñi nga xam ne ñooy murid yi ak képp koo xam ne Euh, moo euh, mooy nungu ak laabiire ci yow nga laabiire ko te jëmmi yàlla rek tax wa na annahu ak naka moom awsalahu eggale na ko euh, li rabbihi jëmale ko ci boroomam an taxliyatin walif rekki maanaam seetal ko wicc ci lépp loo xam ne moo war a denc moom mubashiran muy aji bégale ko bi taxliyatin ci ràngal ko maanaam takal ko lépp luy ngëneel nee na euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daf ma dafa dafa génne ci man lépp loo xam ne waru cee ne lépp loo xam ne euh, jàpp na ne dëppoowut ak li nga xam ne moom moo war a nekk ci man yonente bi sallallahu alayhi daf ko génne ci man sëriñ bi radiyallahu anhu ci liggéeykatam boobu bam seet wicc waaye bi mu ko génnee ba pare nee na dafa wutaat ay ngëneel lépp loo xam ne mooy ngëneel mu bégale ko waaye takkal ko ko muy takkaay lu rafet di wurus wu gànjar woo xam ne euh, boo séenee sëriñ bi radiyallahu anhu euh, xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam liggéey na ci moom waaye lépp luy ngëneel yonente bi saa sallam rafaatale na ko waaye lépp loo xam ne moo moom la ko wara na rekki ci moom dindi ko ci jëmmam ja dindi na ko ci moom ngir lan ngir li nga xam ne loolu la ko wara a rafaatale waaye woote gi nga xam ne moom la waroon a jël woote ko ci ginnaawam waaye euh, di laa biire jullit ñi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim kon euh, sëriñ bi radiyallahu anhu euh, euh, benn la ci kéemtaan yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon na ko mu ne xadintaxa jeex na munawwir suduri téere bi tudd mu na munawwir sudur te moy leeral xol di leeral dënn la dal manazili fa wàccuwaay ye waa inda duuri ak fa kër ya nazamahu way na ko alxadimu liggéeykatu bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam te mooy a cheikhul xadim ama daksasin ci atum daksas te mooy mille cent vingt quatre baadal ana ca ginnaaw coono yi nga xam ne doon na ko toggoo min jaysasin ca la tàmbalee jaysas li jaksasin ba egg ca atum jaksas jaysas mooy at mi nga xam ne ci la yonente bi salallahu alayhi wa amlante ak tubaab bi Euh, ci natt yu métti yi nga xam ne moom lañ ko doon teg di yóbbu ci géej gi ak euh, ya ca xew yépp ba ci jaksas ci année bi nga xam ne ci la natt yooyu jeex euh, di mille trois cent treize di jaysas ba mille trois cent vingt trois nee na ginnaaw coono yooyu nga xam ne moom laa doon jànkoonteel ci ni ma doon amlante ak tubaab bi nee na ginnaaw coono yooyu ci la taalif téere bi man liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaamida rabbin may aji sant buur boo xam ne la yazaalu du deñ sama di ku ñu jublu ci ay aajo musalliyan may aji julli alal bashiri ci aji bégle ja ahmadaate moo di ahmad wal ali ak ñoñña was wal ashaabi ak i sahabaam xisbillahi kuréli yàlla yi maa sukri man ànd sant képp koo xam ne awsalahu awsalahu eggale na ko lillahi te jëmmi yàlla rek tax ne na kon ginnaaw bi nga xamee ne téere bi mat na maa ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye di julli ci yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy borom mbég mi waaye di euh, julli it ci ñi nga xam ne di ñaanal ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam waaye di ñaanal saxaaba yi ak képp koo xam ne euh, euh, yaa ngi dëgmal jublu suñu borom bi subhanahu wa taala ñoo ñëpp maa ngi leen di ñaanal salaatu wasalaam waaye maa ngi leen di ñaanal jàmm ak mucc ak xéewal mu ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon téere bi e, day mel ni foofu la yem ñi e, bu baax te jéggulu di dogalaan ñëpp ngant e, bépp njuumte boo xam ne wàcc na ci biir téere bi ci suñu waxiin ci firiin woo xam ne jaarul yoon ñoo ngi koy tuub bu baax te di ko di ñaan borom xam-xam yi ñu jéggal ñu ko di wax ne yéene rek lañ am waaye xam-xam bi matewu ko yër gi it matewu ko fasaaxa gi matewu ko waaye yéene rek la ñuy kon ñi ngi tuubal ñëpp di jéggulu ñëpp di sant ñëpp di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati